برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نيوي هنيئا لإبراهيم jamaaluhu asalaatu wasalaamu ala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam mbokk yi seetaan fayda tijaaniya point com ñu ngi leen nuyu ku ci nekk ci turam ak jëmmam di jiital ci nuyoo bi ki nga xamante ne moom mooy xalif de fayda di cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim ñas ñu koy ñaanal yàlla mu gudd fan lool yàlla may ko mu àggale Euh, mbëbët wala yàlla may ko mu àggale li nga xamante ne moom la sumb fan yi muy euh, projet yu bëri yi nga xamante ne jëm na ci euh, Médina Cheikh Ibrahim bu jógee foofu tamit ñu ngi nuyu kenn koo xamante tamit ku màgg la ci fayda bi muy imaamul akbar di Cheikh Ahmed Tidiane Alioune Cissé ñu koy ñaanal yàlla gudd fan lool. bu ñu foofu ñu nuyu ki nga xamante ne moom mooy représentant xalif bi fii ci dakaar di Cheikh Baba Lamine ñu koy ñaanal yàlla wér ak gudd fan. waaye tey nag dañoo ñëw ci euh, fi nga xamante moom mooy magasin euh, Sang Barham njaay nga xamante ne fii euh, bërëbu xam-xam la daanaka waaye tamit ñu ñëw ziar si wala waxtaan si ak ki nga xamante ne borom xam-xam la ndaxte bërëb bi ñu bëri dinañ ci gindeekoo ñu bari dinañ ci jàngee kon bërëb bu xam-xam la ba pare ñu ñëw fekk si ki nga xamante tamit moom tamit borom xam-xam la muy Sang Barham Ndiaye sang bi ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa salaatu ak salaamu ala rasulillahi ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu umma islam bi yëpp fu waaye mën a nekk ñu ngi lay ndokkeel ci weeru ndokkeelante bi nga xam ne mooy weeru Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam te bu ne yunteel Muhammad rek wax nañ umma bi yëpp ndax moom ci leeram lañ bindee mboolem bindaafoon yi ñi gëm yàlla ak ñi ko weddi ñëpp loolu yàllaa ko def mu nekk ni ko yàlla waxee toujours tawhan aw karhan ku yëg loolu la ku yëg tamit loolu la comme ni ko waxee léegi maa ngi sant yàlla bu baax di nuyu Medina Cheikh Ibrahim sama nuyoo maa ngi ci jiital sahibul fayda tijaaniya de Mawlana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahim ak Ñasi ak Kawlaxi waaye di nuyu xalifaam Mahmoudou Mahi Ibrahima Ñas di ko ndokkeel bu baax a baax a baax ci yéen bi ko yàlla yéen jan borom bi subhaanahu wa taala yàlla may ko tawfiq tawfiq lepp ci o ma tawfiq ila billah ya may ko jàmmoo may ko njabotam ci lu feñ njabotam na yatna nolol. waye di nuyu imam al akbar imam bi nga xamne moy sang imam Yap, di cheikh ahmad tidiane sisé aline ñu ngi nuyu baax di ko ndokel di nuyu ay ak ay وعيدني بورتو بورولو مدنا شابراهيم السيد ماهي الين سيسي دي كون دوكيل بو باخ موي تيميد نيام بروم سبحانه وتعالى توفيق دي نيو مبولم دوم شابراهيم ياب وعيد نيو خليفه بي في تي بيت دكار شيخ محمد الامين كنكو خم سي باب لامين نيو باخ di ko ndokkeel bu baax di nuyu njabootam yëpp zaahir ak baatin di bëgg ànd ak yéen rek ci lenn ci li nga xam ne yàlla xamal nañu ko ci bis biñ jëm te mooy gàmmo te mooy weer yunte al Muhammad bàyyi nag nee na weeram la ko maa ci ndokkeel ñëpp képp nag taalib bàyyi rek maa ngi ci ndokkeel di ziyaara njëkk abiyaat bi dañu waxtaan ci borom abiyat bi d'abord ak lan moo tax mu ndokkeel boppam ci weer wi ndax Cheikh Ibrahim bëggam ci yontal Muhammad ak xamam ci ma Muhammad ñaar la yoo xam ne mbinaafoon xaram na mu sakkoti ko ndax moom moo ko bind moom bay moo bind ne faman raama darki Nabi na, fakat raama amran mustahilan muharrama baay mu ne képp koy sakko jot ma man bàyyi ñas ci bëggantal mahamad mbaa xam yonent bi yaa ngi sakk lu jomb yaa ngi sakk lu xaram ah loolu day lu day waar la la tax nag mu jomb ta xaraam ñun loolu war a waxtaanee pour mën a layal bàyyi ma nekk awakaam ci lépp lu wéy comme ñu ngi dund fii ci àddina bi ni fi nekk di ko incar ñu mën a layal leen li bàyyi di wax lu lan la bàyyi nee na képp ku sakko jot ma ci yuntaal Muhammad ci mbëggal ak xam-xam yaa ngi sakko jomb te dafa xaraam nga ne ma lu tax bàyyi wax loolu ndax bàyyi moo wax ne man Cheikh Ibrahim ba may ànd ak yunteel muhammad sallallahu alayhi wa sallam boobu yàlla mi nga xam ne mooy yàlla sax bindagul jamono ak barab ñu ne ko bindal ngir ëllëgay tax bàyyi mun a xat ahbabtuhu xata arani kuntuhu wa rabbiya lam yaxlaq makaanan wala waxta mu ne man bàyyi bëgg na yuntal muhammad sopp naa ko ba gis ne man may moom te mooy man te ba may nekk di moom mu nekk di man boobu yàlla bindugul jamono bindugul barab jamono ak barab nag lan la sama ko laajee man jamono mooy Seydina Muhammad barab mooy Cheikh Tidiane te boobu yàlla bindugul dara kon kii mel ak moom nii kuy sakku daje ak moom ci mbëggal ci lii xaram na ndax muntul nekk pas possible ñu mbaxi bobu bàyyi mu ne yonte muhammad Anna ak mom ci nubutu man fa jawatu taha ahmad al badri nasri fa nga yam mu ne ma mo ci wilaay cheikh tidiane wa jawruhu cheikh ma dekk ak mom ci bir wëyam yi way nak buñ ko waxe borom wilaay mom mom wëyi fa nga yam mu ne dedet wa jaawari bayta ma dëkk ak moom Cheikh man sama biir néeg man Cheikh Ibrahima kon la jey déggee taratan lamuñu asal taratan lamuy nubuwo taratan lamuñu wilaya taratan lamuñu khilafa li nak dof mo koy xam ñinga fa ngey mu ne déedéet damay ànd ak moom ba dugg ak mom ci bir kër gi jëm te ko badali muhayyaawu habani wisaluhu te waman la sirral Mustafa ak sara samt seen sama war na ma xarxaram bi jokkoon ak moom mu ne nag kon nag comme badal yi mu xëyoo am na habani wisaluhu may na ma jokkoon moom kon waman naa la sëral Mustafa képp ko xam dëgg-dëgg mbóotu yontaal Muhammad ak sara samta da ngay bëri looy noppi loolu nag gëlëma la ñu bari am na ñu dem tey banaan ku xameel dëgg-dëgg day noppi du wax bu noppee amee ay am <laughs> yàlla sax noppiwut yàlla noppiwul te ba léegi noppeegut yi tam sam noppiwul te ba tey jii noppeegul ñaata xadis la wax Cheikh Tidiane noppeegul te ba léegi noppeegul Cheikh mësul musul noppi jamono. deme sax ba mu yàgg mu naa moom Cheikh Ibrahim saqaw nii maa saqaw nii waa qaalu lii laa laa tuqan nii mu ne man bàyyi damaa nàmpal ndox moo xam ne naan ko ba man di ñu ma noppil te man bàyyi li ma naan nii ba man di ñu ma noppil su ma joxoon dañu dox dañu xunee ni woo sax moom day wax ba xotteeku kon man bàyyi daa wax ba xotteeku may tamit ndax man bàyyi dama ñëw aw jot nii xàqan li jabril kastri man dama ñëw pour jag dama dama yi kon du noppi fekk dama dem nga am ci islaam man bàyyi duma nopp mukk lii moom taxam lii mooy sa mission kon ñu ngi santaale baax bàyyi bëgg bi gi mu bëgg yontaale Muhammad kenn ko ci fekk comme ne xanaa nga bëgg yonte bi waaye gars yi xam yonte bi yonte bi ibn abdullah bokkul Muhammad rasulullah bokkul maqaama bàyyi moom ba yow yonte bi nga xam ne moo ngi ca asal lay woy bàyyi di woy moo tax nga dégg mu ne inni nii qablal baraya xubbuhu soxlul jinaani wa akli wa sarabi wa diini wa jinaani waaye wa huwa unsi wa huwa kanzi wa amini wa amaani wa rafiqi wa tariqi wa jawaadi wa sinaani wa rubuhi wa qusuri wa huwa xayraatul isaani dem ba mu yàgg mu ne ko rubb sinvin kuntu arju wasluhu suma jafaani mazzaqu jilli jihaaran axrajuni min makaani doona sanbin xeyru anni hubbutaha fil jinaani lam yanaalu ma araadu qad madasa wa kon ñu ngi sant yàlla bu baax di wax encore une fois ne kenn du moom waaye moo tax du kenn ndax li muy wax ci yonent bi sallallahu alayhi soo ko nit simple mu ne kii dafa ëppal dégg na ay nit ñu naan bàyyi dafa dafa ëppal ci yonental Muhammad waaw moo yeey yàlla mi ko bind yàlla bind yonental Muhammad moo njëkk ëppal moom yàlla mi ëppal ba moom yàlla subhanahu wa taala ak malaka yëpp ñu ngi julli ci yonent bi lii kay ëppal man ta yàlla moo ne inna allaha naka ñun yàlla wa malaykatu ak suñu malaka yëpp ñun yusuna ala nabi yëmu ci de teg ca na ne yaa ayyuhal lazina amanu ndigeef la loolu dafa yàlla daf ko digal julli yëpp képp ko gëm yàlla julli ci moom kon ki yalla ëppale ci moom lool tey boo ne ba ci alquran da ngeen mën a woon nañ mi isa hawa ma dalla sahibukum wa ma qawa wa ma yantiqu an hawa in huwa ila wahyun yuha loolu lu day waar la kon bàyyi bu ëppale ci yontu bi mooy yey ëpp ci moom ndaxte ki nga bëgg kay da nga dem ba ba nekk moom benn jëmm mais yaay bëgg ko yaay yaay yaay xër ci moom kon nag moo tax yun sam sam ne kon nag bàyyi na yun sam sam mii mooy koo xam moom ya ci bara yaay yi ومن تانيتي براياي بامني بامني ساري من دا فا جانغ موني ساري من وصل القواني واقتصل ذكر اقاني ورمي بالبيد حساني وصل مقتوم ديناني والملاهي والمغاني من كراني او مباني كل سي ويك سرابون وابقي روحا للمهاني باي كوكو ماي كاي مونا هيدو هائل xaqu xaqin taaliyan sabal masaar bàyyi koy wax mu ne bi sifari saati xaqan rubatan laysa lisaani fa huwa ki may wax nii muxtaaru baraya xam ta kuy ne kii yaa ne kii muy ko dañ ci baraya yi bàyyi yaay kan nag mu ne man maay xablal baraya kii mooy muxtaaru baraya kii mooy xablal baraya ñaar ñii ngi ànd nañ ba yàgg caasoo ba léegi yéen a mooy muxtaarul baraya mooy kun tànn ci baraya yi bàyyi mu ne man bara baraya man maa nekkoon ini nii xablal baraya kon ñu ngi santaale baax ci Cheikh Ibrahim mu nekk wax yoo xam ne wax yu yéeme la ci ñi kaw ñi xam la may xam-xamu tasawuf wax naa ma ne xam-xamu tasawuf ñëkk bàyyi kenn laalagu ko ay gars yi ñoo ñëw di di jéem a laalantu di wax ay waxu dof waxu waxu waaye bi borom maqaam bi ñëwee moom da koy téye di ko waxee nu ko neexee sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy Cheikh Ibrahim moo tax ñu ngi waajal bis boo xam ne nag wala weer woo xam ne weeru gàmmoo la wax naa ne weer ñetti fukki fan lay doon fukki fan yii xam nañ ko borom sifaa ko moom fukki fan yii xam nañ ko borom isu moo ko moom waaye fukki fan yi nga xam ne mooy fukki fan yi xaqiqa yi nag borom xilaafa ko te borom xilaafa mooy Cheikh Ibrahim moo tax mu ne xan nii an li Ibrahim ah lii moo tax baay ndokkeel boppam parce que xam ne moom mbir bi mu ne xan nii an li Ibrahim laaha hilaaluhu هلال بدا لناصرين جماله من علل رابه فيه جاء محمد فتم لنا بشرى وهم نواله نقول تخ موي لافضل الارض حل افضل المرسلين بافضل يوم فالسبان كماله كان جاي وقت من قد اختير من كل حوالي اصله صلى الله عليه وسلم كي موي باي نياس لي نك موي ويرغا متا باي ندكل بو ويرغا مو بي باي ويرغا مو دغ دغ باي لا nga ne pourquoi nga naa bàyyi la man que yunta balaa juddu dafa am ndey am baay te bàyyi yunta la bi ci boppam maanaam mooy fukki fan gàmmo yu njëkk yi yaayam li muy isaara mooy fukki fan yu topp ci gàmmo gi waaye gàmmo gi dëgg nag fi ñu ëmbee yunta sam dëgg nag foofu mooy dëgg dëgg mbiru Cheikh Ibrahim moo tax bàyyi moo judd foofu su ma foofu nag lu mu war a wax kon xam ne Ibrahima kay laxaa hilalu Hirama Hirama feeñ na weer mi feeñ na maa koy ndokkee ci loolu soo gisee wax boobu wax bu day waar la bu nag bu nakay déggal nag ci àddina bi waaye bàyyi ko wax dembam yàggee nag sadd sawqi wasti yaqin xam nga yooyu deen war sadd sawqi wasti yaqin aaniya seeqa talaaqi fal tuuti lii bin talaaqi wal tax fii lii bi talaaqi loolu waxu waxu bàyyi la ba tey ci waxu bëgg gi mu bëgg yun tam sa ci beneen marxal kon ñu ngi sant baax di wax am ko imran gamoo ñëwati na gàmmoo nag li muy firi mooy gàmmoo du dara lurul mooy wax ci yuntal Muhammad ci ay jukkam yu sell ay jukkam yu teey yu rafet yu neex nett ci moom ay ngëneel ndax yàlla subhanahu wa taala moo ne yuntal Muhammad dana netti xibaaru yonent yi passé woon ngi def sa xol mën a dal waaw bàyyi neen waaw ku toll yuntal Muhammad saai sallam ëpp ñëpp xam-xam man ñëpp yàlla yee ko ne ko daan netti xibaaru yonent yi rek parce que ma dal asma ñun kon kon ñun taw ku ñu defal xibar yu tal mam sans ko dama dal ah ga day dal kon gamu limi firi moy nga dem ci kula gën xam yu tal muhammad so gisee ñu jige ci barab dem dem ci barab bizar ji barab ak barab lu waral lolu barab du gën barab barab ak barab gën tuñ waye na ah kay dañu gënte parce que la wacc barab mo ta barab gën barab so gisee mbidna bañes gën mbolem hadna bi yépp ka fa wacc tax koku rek ma wara gamu nak kooku rek moo war ga moom moo tax moom jógee ci foo ma jógee ci àdduna bi dem bi na bàyyi dagal na ndax fa dëgg dëgg dafa dëgg yuntu boo xam ne lii mosu ko dëgg ba juddoo ba léegi sallallahu alayhi wa kon nag jógee ci ba dañ loolu firi te waxtu woo jógee ci barab dem ci barab war ngaa fekk ci barab koo xam ne bu toogee nii di wax ci yuntal Muhammad da nga gërëm da am bëgg ci yuntu bi ba mu yegg dafar gërëm ci moom foofu ndax dama koy wax xoolal mu ne dama yàgg mu ne ko ayaa sifatan ayaa sifatan et yow melokaan bi nga xam ne yaa niru ak kële bind ko kan lay wax yow yaa niru ak kële bind moo tax yéen sam ñaari maqaama la am bii Muhammad ibn Abdullahi la bii Muhammad Rasulullah bokkuñ maqaama Muhammad ibn Abdullahi Alquraan nee na laqad jaakum rasulu min anfusikum kii ibn Abdullahi la waaye rasulu min allahi yoolu safar mu taxaartan kii mooy Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne man ana min allahi wala mu ne min nii moo tax yontu bëri boobu la la bàyyi jàngay nag bañes na mom bu toge di gamo rek boko toge rek ba wax mu yow nga def ayaa sifatan qad subihat bi ismi faahili mata jiti filan jiti ayrata haqli fa innaki jamhun haysu andi su'unhu wa qad jiti fardan dur shaklin mumasili falak yaqa aqu aqu ma duri falak yaqa دائما عن مواصل عليها ستحق بالحق وحدها لتخ لا تكون بطل فيها واصل محمد نور الحق تكفي إساتون إلى سر مقفاو سما محمد ولا حلم أقوام أن أني محمد أني قديمه فوز حبيب الله يلفظ وسلا ولا حلم أقوام مهنا محمد حقيقة حلم حسمه ومجده صلى الله عليه وسلم ماي باي لم كو تشولف من ايا صفة أي ملو ينا قمنا قد سبحت باسم فيا نور أكل بند يا نور أكل بند لول موي لان كل بند ما يالا يا نور موم لما تنجي نرو موم parce que yàlla moo la bind a pare jël jëmam ji may la ko jël melokaanam yi may la ko jël ay turam may la ko jël ay jëfam may la ko jël ay jeexitalam may la ko kon kay yàlla nga la kële bind lan xam te kii amu ko lan la kii am te kii amu ko bàyyi sa ci wax boobu war mu ne yun sax ak yàlla xamuñu melam mu mel ne kii may ak kiñ may ñu ne ku maye mu ne kii maye mooy yàlla kii may mu yonti lu ko may nag boppam la ko may koo may sa jëmm kay may ko sa melogo may ko sa tur may ko jë may ko ay kooku yaay kan kooku yaay mooy est-ce que ñaar ngay nekk su boobaa moo tax nañ sant yàlla baax te xam ne bàyyi li muy wéy leer na loolu bàyyi te moom yàgg mu tag yontu sala mu ne yontu sala xamul loolu Muhammadu fiilu hamdi laa fiilu xeyruhu da aar fi ixraab waaye foofu fasihu Muhammadu mooy jëfu cant yàlla subhanahu wa taala yontu du sant yàlla de moom mooy jëfi cant ci sa baaman fiilu hamdi te laa fiilu xeyri yi da aar fi ixraab foofu fasihu kon ñu ngi sant yàlla baax di wax encore une fois ne gàmmoo lu dagal la gàmmoo

attahaddasu bi nihmatillahi zukurun wa tarkuha mu ne kufrun ne ne waxtaanoo nettal xéwal yàlla yéen yàlla xéwalal mu ne sant yàlla ñàkk waxtaanee nag mu ne kéeféer la attahaddasu bi nihmatillahi sukurun wa tarkuha nag kufrun nettali li yàlla xéwalal yéen sax nee na loolu de sant yàlla soko bay netul nak moy lol kefer la léegi nak lan yàlla lan yàlla ni moy xéwal ci ñun lan la yàlla xéwal ci ñun alquran neena laqad manna allahu ala muminina isbaasa fi mursul lol moy lan laqad manna moy mooy xéwalal na allahu yàlla hal mo ci ñi gëm yàlla yàlla ni ñi xew ñu xew lan la mu ne isbaasa fihim rasul bi mu wàcce ci yuntal Muhammad isbaasa fi mursul yàlla ale ayatihi wa yuzakkihim wa yuhallimuhum wa yàlla ma kitaaba wal hikmata benn xaalis mi ngi ko defee yàlla ma bii kon li muy xéwal ndeke ndeke xéwal mooy wàcce yun sam ci ko suuf si laqat man na laaw ala muminin yàlla xéwaloo jullit ñi gëm yàlla ñëpp yàlla wàcc ñoom yonent bi yàlla subhanahu wa taala kon ndeke xéwal baa ngi nii loolu moo tax yén so nag kon kon nag xéwal yàlla ku ko ku ko waxtaanee sant nga yàlla ko ko weddi yéeféer nga kon nag képp ku ne gàmmoo nga gàmmoo nga yaa ci xéwal ndax bi li fi li fi gën di lan la doom rek xéwal la doom yàlla képp ko may yàlla nee na sam nee na képp ki yàlla may doom ci àdduna bi rek may na xel bu gën a fort ci àdduna bépp doom rawatina ko yàlla may yuntal mamat tey bu yéen tam juddoon kenn juddu bu yéen tam amutoon kenn du am xam sama way lii rek gars yi tiit ne ah yéen sax balaa ñëw aadama ñëwoon na ma ne yow xam xamoo li ngay wax yéen sax daf ne kuntu nabiyan aaliman bi nubuwwati wa aadama bayna al maa'i wa tiini te laa aadama wala al maa'i ولا تيني ولا هرشي ولا كرسي ولا سماء ولا صبي ولا أبي الصبي ولا الجنة ولا النار wala wala wala kon kay yun sam leeram leelu bee sa aadama subhanahu wa taala nee na lu tax aadama amul ndey amul baay tey ñu ñu ne aadama am na ndey am na baay problème yi nii nag fii la problème nekk ndax yàlla moo ne kat lépp lu mu bind ci nit mais mu nga benn mu benn sul bi watraay bi diggante ndingal ndigal góor ak na dabat yu leelu bi ne ñëpp man aadama xaal nit aadama nit la wala nit nit la àndee ma bàyyam Hawa xanaa du nit àndee ma bàyyam Isa eh, xanaa du nit àndee ma bàyyam lii ku xamul yàlla mën a gis ne ma bàyyam man naa ne Adama am na ndey am na baay Hawa am na ndey am na baay Isa am na ndey am na baay dana isaara nag tuuti benn mayee ko tuuti lii dama téye ko mooy wax nañ ni ci xisa Seydina Jibril Seydina Jibril dafa ñëw ci Mariyam naka sa boromee nee na dafa la bëgg may doom Mariyam ne ko maa ngi mus yàlla ci yow man naka la mën a amee doom te gor musuma laal mooy jigéen boo ragal yàlla ngoog ku sell ngoog xam ngeen ne ku baax Jibril ni mu jantalee ni mu rafetee ñëw ci mel nit nga xam ne ma ëpp na nit taaram dafa jig dayo ba jig dayo nekk jantal booy dajeeg yow foo xam ne kenn nii foofu moo xam lu mel nii nga nga gàttal ko xam nga xam nga kii ku baax la kon Mariam ku baax la boo tax bàyyi mooy sangam mooy sangam mboolem jigéen ñi Jibril nag fekkee mu nga yor ruugi téye ko yàlla moo ne yàlla moo ne ci Alxuraan ne wa nafax naa fiihi min ruuhinaa su suñ ca Mariam lañ war suñu ruuxa ga léegi Jibril la ngi nii taxaw na benn maqaama la ruuxa gi mu téye yi ñaari maqaam la wal na ko ca Mariam du ñaar wal nga ci boobu mooy ñetteel maqaama ba هم بنا إيزان مين تمكامو موجود أنكور نكجول مكام لما تي إيزان نكجول مكام دعني مكام من جبريل تبقى مكام لا ما أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله روغم تيه تو ولغو ما إقام الصلاة ولغم تقول كم مريم ما إتاو زكاة أم بغم أم إيسا ما يصوم رمضان بم جدونا ما أجل بيتي ما مات إني عبد الله أتني الكتاب كون لولو قام قام لبوا قام نيجو يالد قام دنج بري moo tax instant am na ndey am na baay waaye aadama aussi am na am na ndey am na baay loolu nag ndey ba instant ndeyu aadama ak baayu instant nag loolu loolu ñu bëri at ñu ko moo tax xëy na mën naa ko noppee en tout cas arxoon ne mi benn sul bi wa traayeb te sul bi mooy ndigal góor léegi lan mooy góor traay mooy ñetti baatu jigéen luy jigéen ci xaqiqa nekk góor mooy xaqiqatul muhammadiya jigéen mooy xaqiqatul ahmadiya kon min bani summi sifati wa trabil ismi fii laa dama jóge ñu ngi sant yàlla baax yónni yàlla masalam daal ci gàttal gàmmool ko dafa dagan tey dagal ëllëg gi jëm wi ñàkk gàmmoo kéeféer la nit xewal yàlla ci yónte bi di wax ay leeram di wax ak juddoom avant mu judd sax fan la jaaroon avant mu judd fu mu jaar te bu judd encore fan la jaar ba judd sallallahu alayhi wasallam kon rek ci xisal saayir rek ñu ne yaayam daf ko ëmb rek baayam faatu avant mujjud rek bayam fatou ben maqama la mujjud rek quelques mois yam fatou mam yar ko encore 8 mois rek 8 ans rek fatou kon bayam fatou na yaayam fatou na maamam fatou na mu mo des moom kenn kon ki kenn yoruko bayna bàyyi man xamna ko yar ñu ne ko yar mu ne nabiyun qubaylal kawni wa had rabbuhu fas ali zaatu un seul bi sa yàlla dafa fiir ci mom yàlla ko bëgg ba fiir ci mom بقول كن كو كمال دار كو كمال تيمو بين عيب ني نكي كو يار مات يالا ري بايام ري يام ري مام ما خامن كو كن دكو يار موكو يالا بوبوم يالا كو يار بوم سبحانه وتعالى مات من اد بن ربي فاحسن تهديبي من كيما يار موي سان بروم تير برافنا لول كون نيو سنتال باخ مات مولانا شيخ ابن خيري نولوته فهويته من قبل ما هو سيفا يسوبتا اسبق لولو واخ لا بوكاني موي تيميت ma ngay dem ci ñi yàlla xamal lan may xam-xam yàlla subhanahu wa taala kon ñu ngi sante yàlla baax encore ko defal di wax ne gamo dagana tey ak léegi jëm doyna rek ñaari hadith yi ma wax ni atahaddasu bi nihmatullahi zukurun waxtaan xewal yàlla yi yàlla mo ne yun sam neena lolu moy xewal deug deug deug deug deug to moy sante yàlla yàlla mo ne laqad man la ala muminina yàlla wacce ci yéen yonent bi yàlla bi xewal bu rëy bi wàcc ci yéen yonent bi yàlla bi kon xewal mooy yuntal Muhammad waxtaanee ko ay mbir kon moy xewal kon gàmmoo xéewal la weddi gàmmoo kéeféer la